waaye dëgg dëgg dëgg dëgg bu ñu dajalee yooyu yëpp crise éducation moom moo am comme nag am na feebar boo xam dafa dàpp nit ñi incha allah oustaz dinañu wax feebar boobu mooy ban crise boobu crise boobu ñan ñoo yor responsabilité bi ñan ñooy masuuliin yi waaye feebar boobu tamit nan la def pour faju ci bon daal ci gàttal lii mooy li ma doon ubbil joxu oustaz kàddu gi allah. ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañuy nuyu jullit ñi fi teew ñëpp ci nuyoo bi nga xam ne mu ngi bàyyeekoo ci yàlla jëm si ci jaamam yi yëpp. muy asalaamu aleykum wa taala wa barakatuhu di gërëm al oustaz Ibrahima Sène yu mu commencé di jokkoo ak ñun ci bés bi yàgg na am nañu yaakaar ne daaw ci waxtu wi ñëwoon nañ fi doon def lu mel nii di nuyoo itam al mufattish Mouhamadul Moustapha Wan muy sunu magum daara comme ni mu ko waxee nekk inspecteur di nuyu soxna yi ak kilifa yëpp ñi fi teew ku ñu tudd ak ku ñu tuddul ak ñi fi teew ñëpp xale yi encore ñu ngi leen di jagleel nuyoo ndax ñoom ñooy mustaqbalul umma. ñooy aveniru xeet bi ñooy avenir u moo tax defar leen wareefu ku ne la ñépp ci war a dugal seen loxo maa ngi koy wax Ibrahim dañoo war a dem sama benn doom dafa mokkal alquran ñu doon ko déglu tey bu ma fi jógee foofu laa jëm war koy jëli yóbbu ko ci kër ga di ci sant yàlla subhanahu wa taala waaye lu ci mënta xew comme que liggéey bi yëpp benn la dinañu njëkkee fii ñu ñëw barkeelu fi rek kon niñ ko daan defee te xam ne yëpp alquran la yëpp lislaam la ñëpp ñëpp ñoo ko bokk Ibrahim doon ñu wax ne ren dafa bëggoon ñu waxtaan ci azmatu tarbiya wa tahdidul masuliyat mooy crise d'éducation ak définir les responsabilités comme ni ko mu fattish waxee crise am na ci la àdduna bi yëpp di dund actuellement ba demee ci arab dañ naan al azmatu al iqtisadiya muy crise économique ku ne xam na ne àdduna bi yëpp ñoo koy dund dinañuy wax itam al azmatu asiasiya muy crise politique loolu it yaakaar naa benn bu ci ne tem la te buñ ciy waxtaanee du doon lu ñuy nettali mais lu ñuy wan nit ñi la ñun ñëpp ñu koy dundandoo. am na lu ñuy wax al azmatu al ijtimaaiya muy crise sociale am na al azmatu al axlaaqiya muy crise morale xam naa crise morale bu mujj boobu dafa mel ni ñun tey mooy sunu thème ndax mooy crise éducation bu ñu paree itam ñu jéem a définir. responsabilité yi loolu lu ko waral kan kan la ak kan lañ koy njëkk a laaj tey na ci gàttal bu ñu ko temps bi mayee ci ñaari tomb yooyu moom la ñuy fas yéene di waxtaanee crise nag tubaab la arab di wax al azmatu waaye ci wolof mooy tartar tartar wala boog xat-xat buñ nekk crise mooy déséquilibre dafa am adduna bi yàlla def ko tabax ci mu équilibré ci wàllu yar gi yar nag bari na façon ndax li nga gis ne moo rafet boo demee ca keneen dafa ñaaw ci moom li nga gis yow itam ne dafa ñaaw soo demee feneen dafa rafet misaal bi ma ciy wax mooy xale bu jigéen bi jël bi sol short bu ndaw short laa wax de romb kilifa yi fii bu dee Sénégal dañ naan mais kii xanaa amul kilifa ka dañ koy ñaawlu waaye boo rombee màggat yi nekkul France dañ naan mais kii li mu sol c'est très joli kon bari na lu ñaaw ci yow dafa rafet ci yeneen xeet bari na lu rafet ci yow itam dafa ñaaw ci yeneen xeet mais bu ñuy waxtaan ñun ci éducation mooy bu islam bi moo ñu tax a jóg la yàlla rafetlu yónnente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rafetlu ko kilifa yi nga xam ne tey. ñooy sunu kilifa ci diina ñoom it ñu rafetlu ko doon ci woote di ci yar njaboot gi ñun loolu mooy la ñu ci yitteel ci loolu la ñuy waxtaane tey bu ñu waxee xat-xat comme crise wala tartar bu économique bu politique bu social bu jikko ñu teg ci tarbiya ismatu tarbiya crise éducation tarbiya mooy lan éducation mooy lan boo demee ci dañ naan mooy amaliyatu ihdaasi taxyirin fi shaxsiyati tifli fi tijaahin marxubin fiihi min nahiyatil jamaa day nekk benn liggéey yar liggéey la boo xam ne dañ koy def pour soppi changement ci personnalité xale bi orienté ko jëmale ci bo jëmale ko ci côté boo xam ne mbooloo moom dugg rek mbooloo mi xemem xale bi mbooloo mi bëgg xale bi mbooloo mi mën a accepté xale bi ci jikkoom ak ci jëfam ak ci waxam loolu bu dee ci wàllu social ak ni ñuy dundee ñun loolu mooy wàllu éducation buñ ne axraadu tarbiya diiniya mu ne nga takk ko ngir alalam ngir ngir taaram taaru jigéen yàggul rab day wax ne jamaalul mar'ati tuxyaanun xasiir taarub jigéen diir bu gàtt la 18 ans 20 ans nga takku ko bu amee benn doom am ñaari doom ngay xalaat ñaareel loolu leer na ñëpp taar ba nga ko gisoon ca moom ba mu amee 20 ans 18 ans bu fekkoon moo nekk ci moom mais nga yem ci moom kon temps bu gàtt la yonent bi ne wala nga takk ko ngir askanam mag ñi daan nañu wax booy ut soxna ñu ne la demal kër yaay diw daan nañu ko wax ñun demal kër yaay diw parce que ay sëykat lañ mag ñi daan nañ ci yebal nga bëgg soxna doon xale bu góor ñu ne la demal sa kër yaay diw baa du nay baax laa wax de wala bu fekkee jigéen nga ñu ne la dangay xaar ñu tànnal la xoolal la góor mais léegi amatul léegi liberté alxoriya liberté moom lañ tasaari ci àdduna bi xale bu jigéen bi mooy tànn ku ko neex ah, yaay ji mënu ci dara xamoo fu ñu dajee ca car rapide ba la ñu dajee wala ñu dajee ca baal ba wala ñu dajee wala ñu dajee wala ñu dajee wala ñu dajee ca géej ga yaa xam fu ñuy dajee waxtaan mu présenté la ko nga ñëw kenn xamul lan la ñu ne nañ ko ko may xamoo fu mu jógee wala mu envoyé la SMS léegi jamono je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime moo xew je t'aime je t'aime je t'aime ni ngeen ko xamee ma xamee ko ko moo xew ci loolu la ñuy tànn. soxna waaye yonent bi daf ne eh, wala ñu tànn jigéen ci diinaam yonent bi ne fasfar bi daati diin taribat yadak booy tànn am na taar am na alal bokk na ci askan askan islaam daf ko dajji alquran inna akramakum indallahi ka gën a tedd ci yéen ca yàlla mooy ki gën a ragal yàlla ragal yàlla nag mën nay jóge ku ne ñeme yàlla it mën nay jógee fu ne yonent bi insisté ci jigéen ju am diina nee na kooku ngay tànn mu tegee loolu ci wàllu jigéen ñi yow góor gi itam jigéen ji nga xam ne moo bugg boroom kër yonent bi ne ida ataakum daw na diinuhu wa xuluquhu fa zawijuhu góor su ñëwee ne dafa bëgg sa doom yonent bi nee na xoolal diinaam ak jomam diina ak jom soo amee diina li ko diina sant ci soxna si yëpp dina ko def soo amee jom dina liggéey ba dina toppatoo soxna si diina ak jom mën nay nekk na ci borom sagar du matériel du 4 x bu ñuy gaaree du oto bu ñuy gaare du bassin bu ñuy sol du koppati mu ñuy sol encore mën nay nekk ci nit ku ñàkk solo mu ñëw nga xeeb ko ngir comportement am fekk na yónnent bi nee na mooy vrai borom kër mu ngi noonu kon yónnent bi balaa muy ñëw ci éducation bi dafa ñëw ci ñaar ñi nga xam ne ñoo war a meññi xale yi ne leen na ngeen fexe ba tànnante su ngeen bëggee njaboot gu yàlla gërëm société bi encore gërëm ko kon góor gi na ut diina soxna su am diina mais jigéen ji itam na ut góor gu am diina ñaar ñu am diina mais ñooñu lu meññ ci ñoom mais ci yoon albaladu tayibu la alquran wax yaxruju nabatuhu bi isna rabbihi wala si xabusa laa yuxriju ila nakidan garab gu baax ak suuf su baax yonent bi ne loo ci ji lu ca meññ rek lu baax lay doon muy alquran ba ko yàlla di wax nag naan al baladu tayyibu mi jigéen ju baax laa yuxriju ila nakidan maanaam eh, eh, yaxruju nabatuhu bi isna rabbihi doom ju mu jur doom ju baax jàll maanaam doom ju baax lay doon léeg-léeg sax nga am noo mel ñu ne ñu lay woy ci sa yaay borom yaay ju baax la dañ koy wax loolu kay defe naa tàmm nañ ko ñun senegal aaye boobu nit ca na nga mel dañ naan dañ xool ca way jur wa maaruf rusafi di wax ne wa axlaaqul walidi tuqaasu xusnan bi axlaaqi nisaa'il walidaati jikko xale bi buñ koy natt ci baax ak bon nañ ko natt ci jikko yaay ji kon responsabilité bi gën a bari ci wàllu éducation boroom xam-xam yeeg diina jéeg yépp ci loxol jigéen ñi la ko teg ndax nag du yeb jigéen yàlla fi mu teg jigéen dafa tegut góor ku ne ci ñun am na yaay ak baay mais ki gën a sonn ci yow mooy sa yaay ndax yaay mooy ëmb sa doom boo koy éduquer keroog ba nga ko ëmbee nga koy commencé yar ba nga ko ëmbee te juddoogul ci nga koy commencé di ko yar